ba dem na kang waxum ak dem na ndeñ daali ma ne lu waay doon jaay tey mu lamb final rawgadu fii ci Ndorong la diggante Babou Ndiaye bu mar faafa ko ak ki nga ne moom mooy na siñoor bu mbasis la mbam na siñoor moo ñu woon gannaaw Babou Ndiaye moom lañ jàkkaarlal bu mar faafa ko Babou Ndiaye jiital tànku ndeyjooram mbam na siñoor jiital tànku càmmoñam ba tax na damay bëggee képp kuy bëggee Zilo TV Gara Ousmane Mané bëggee naa la eh Gara Omar Mané di rakam maa ngi koy kontaane waaye di bëggee suma waay suma xarit Moussa Thiaré bu El Bandi bëggee naa ko waaye di bëggee suma waay borom Sine Boyar waaye borom Espagne Mamadou Ndong kontaane naa ko ndeysaan Abibou Abou Gueye maa ngi koy kontaane fii are bay demba bi kontaane naa leen ñoom Alsaan ñoom Omar ñoom Pa maa ngi di siyaar ndeysaan le temps Mbodjeen nee na naam ko laawo kama Mbodjeen arbitre nee na Babou Ndiaye moo daanu arbitre da ngaa juum